waaw koy si ak le micro que du temps je crois que am na lu am solo lu ñu waxagum sur l'auteur l'homme politique son le sens de son engagement am na yeneen thèmes yoo xamante nii bu dee amul lootee loo xamante dañ si bëgg a dellu si si thèmes yi mën nañ poursuivre il y les institutions il la gouvernance il la citoyenneté buñ ci duggee ba pare après am na benn film bu ndaw bu ñuy xool door a dem euh, sur l' aspect économique ak Cheikh Tidiane Mbaye ak it euh, Khadim Bamba Diagne kon Pape Alé bu dee sa micro baax na te wutaleen euh, ko micro rapidement ñu jox ko kàddu bu ko defee moom tam mu posé ay question parce que le temps défile loolu dinañu permettre bu ko defee et puis Ousmane Sonko tamit il est loquace heureusement que le public est conquis bëgg nañ di déglu

am na lu mu wax loo xam ni mosu wax nee na am na cabinet d'expertise fiscale xam nga loolu déjà information la buñ ci am parce que jël salaire député xaaj ko ñeent di dundee moom xel mënu xel mënu ko àttan donc xëy na question yi tax na mu génne ci biiram lu bari loo xam ni kenn xam ko waaye nag man de suis pas issu conflit de la République c'est normal kon ñu ngi koy jaajëfal Papa Alé Niang kàddu gaa jërëjëf euh, Pape Cheikh Sylla di euh, sant di euh, nga xam ne mooy di Ousmane Sonko ndax épreuve bi nga xam ne nangu na ko def en tant que leader politique je crois que première dans l'histoire politique du Sénégal kon ñuy ñaan tamit yeneen leaders yi nga xam ne ñeme nañ ko nañ ko ñu bi euh, ay journalistes lañ normal mais je crois également on doit participer à l'éveil conscience citoyenne forte ba choix bi nga xam ne citoyen bu koy def ci biir isoloir mu nekk un boo xam ne judicieux et pour l' intérêt du Sénégal te loolu mu ko mën a defee lu dul ci ay programme ay débat d'idées contradictoire ñëpp toog xam fan la dëgg bu féete ndax nag dafa koy wax wax weddi dafa yomb lool ci réew mi léegi te doo ci jëlee gàcce waaye nag lu fi waay wax rek dañ koy tegaat kon Ousmane sas nga sa bopp tey ba nga dee ci épreuve bii ñaari laaj lay laa lay yu gàtt benn bi du man maa koy laaj parce que xam naa la bu baax a baax mais ñu bëree bëri bu ñuy wax Ousmane Sonko dañuy wax nit koo xam ne dafa yëg boppam foog na moom rek am xam Sénégal foog na mooy messi politique il est arrogant il est koy dégg ñu koy wax du man maa lay weddal loolu tey am nga occasion bi nga wax est-ce que portrait boobu ñuy dressé ci yow nekk na wala dana la umpale beneen bi ñu ñëw ci système damay dégg ngay wax système mais man li ma gëm mooy au-delà du système c'est le poste de président de la république qui pose problème mooy buur di bulu mooy tëj di génne mooy dogal def lu ko neex mooy l'hypertrophie du pouvoir présidentiel ñëpp ko d'accord assise nationale yi bañ ciy liggéey ñëpp d'accord woon ba ñu ñëw fii place de l'Obélisque fii 2011 2012 ne président bu faru li nga war a njëkk a def mooy nangu di ci njëkk sax mooy démissionner sa parti ñaareel bi wàññi say pouvoir jegleel ko yeneen institution yi pour ñooñu tamit mën a doxal mais président boo xam ne boo waxul du ñu jëf. dañuy wax ne kooku nguur gu mu yor Abdoulaye Wade boo ko doon wax du xacc bopp gone day day katakaay ni day dof ba tax ma lay laaj est-ce que yow nekk nga ci disposition yoo xam ne bés bu sénégalais tànnee la nga doon président de la république nga ne man Ousmane Sonko samay pouvoir présidentiel dama koy wàññi lu baree baree bari jox yeneen institution te ci biir wàññi boobu am na yeneen ponk yoo xam ne bu ñu ci waxtaan bi mën naa la ko laaj parce que diggoon nañu fii na organde de contrôle yi dinañ dugg biir palais di càmbar alal ja nekk ca palais diggoon nañu ko fi gisuñu ko diggoon nañu ci fii tamit ne man su ma nekkee président dina nangu lépp loo xam ne mooy corps de contrôle ñu génn ñu jox leen doole ñuy càmbar di jël këyit yi di ko yóbbu ci justice kuñ ci war a téye ñu téye la doo kumba am ndey ak kumba amul ndey mais laaj est-ce que yow nekk nga dans les dispositions une fois élu présidentiel pour doxalee noonu jërëjëf. merci Fapal yi defe leeral ne ni premier bi da nga koo posé pour yow ndax xamante nañu te mënoon nga ko tontu yow sa mais homme public moo ni mel homme foo jaar ñu am lu nga wutal. defe naa lu yonent muccul nit ñu baax ñi ñuy tudd fii ñëpp muccuñu ci yàlla mi ñu bind ñun ñëpp muccu ci ndax li nit dina taxaw fii ne man gëwuma yàlla ku yaakaar dañ ci mucc rek xaw la ñoo naan ku boot bukki voilà kay toog naan il est pédant wala arrogant soo ko ne woon est-ce que mos nga toog ak Ousmane Sonko mu ne la déedéet kon kooku li wax yu tibbee ko ci xam bu mu xam nit or jugement de valeur daa mu lu baax mais su demee ba mu dul ñàkkit na ko teg ci xam bu wóor boo xam nit jëflanteeg moom wax ak moom waaye njort ba tax nga am stéréotype boo def ci nit defe naa loolu bëri na Sénégal mënuñu ci dara mais it mënuñu ci topp pour justifier wu parce que lu amul amut leen rek am na mooy suñu suñuy conviction dañ koy defar su dee loolu moo tax ñu ne il est defe naa commencé guñu sax arrogance suñuy conviction dañ koy défendre benn ñaareel bi mënuñu jàmmarloo ak ay yàqkat ay tooñkat ay nit ñoo xam ne ñi ngi rey askan wi ba pare doon ay yaafus yu yox yoxi xam nga dañ naan bukki bu yabee waxambaane ci doxin nga parce que mu ñi ñu jàppaarloon ci boppam ñoo am yenn xeet yenn xeeti défin ak ay méthodes yoo xam ne léeg-léeg dafay laaj yenn form de réaction parce que tout en eux est violent ak forme violence bu mu jël parce que violence judiciaire violence la def jël administration jël judici euh, pouvoir judiciaire wala euh, jël la justice di ko utiliser di daal ci kaw ay nit yoo xam ne ay père de famille lañu yoo xam ne ay nawle lañu loolu c'est une violence inouïe jël administration di ko utiliser pour dal ci kaw ay nit koo amal affaire tey ku àndul ak yow nga envoyé ko contrôle fiscal bloqué ay comptam def li une violence inouïe utiliser les forces de l'ordre pour réprimer de manière aveugle des manifestations pacifiques c'est une violence xam dégg naa keroog président Macky Sall ne dégg moo wax lu ñaaw ci Ablaye Wade mais def moo gën a garaaw wax lu ñaaw def def nit lu ñaaw moo gën a garaaw wax lu ñaaw et donc face à ces gens-là mënuñu fi nekk naan incha allah macha allah di yaru yaru léeg-léeg dafay laaj la ñu daal keroog assemblée nationale ba ma ne Moustapha Niass dinaa wax wala ñu tëj assemblée bi tey un député nga am temps de parole euh, texte assemblée ne c'est entre cinq minutes et quinze minutes minimum cinq minutes et quinze minutes yow ñëw toog ne forcé dañ koy def trois minutes ba pare nga ñëw taxaw ñu ne la yow Ousmane Sonko trois minutes yi doo ko fi waxee ma dem toog sama ak samay tànk loolu mooy andi yenn saa yi. yenn tri bi mais du ci yar du ci jikko du ci dara euh, la ca des nag wax dëgg yàlla ñun waxuñu rek ñun rek ñu dañ ne am na lu ñu xam te koy wax ak Sénégalais mais mieux encore nous sommes prêts à en yoon laa leen bi ma génnee sama téere bi ci pétrole bi tool ne gañ may leen ñëw leen ñu débat débat benn yi laa bëggoon may leen nag Macky bu ko neexee mu ñëw. Aly Ndiaye na ñëw ànd ak Youssou Kabine Ba na ñëw man dinaa débat man yan yan la ñëw. te loolu loolu loolu wax nii dafa mel moom rek a xam xam nga kii wax kii mel ni moom rek a xam da wax te doo bëgg keneen wax. mais koo xam ne non seulement da ngay wax waaye da nga ne confronter li may wax ak yéen di ngeen di wax mosu ñoo ñëw te du ñu ñëw kon léegi lan la Sénégal yi bëgg. alors sa deuxième question bi sur les institutions sur le les pouvoirs du président de la République je crois que bind naa dafa am ñaar dafa am loo xam ne effectivement système bi ni mu tëggoo dafa jox pouvoir yu bëri président de waaye dafa am loo xam ne du système bi kese mais ci nit ñi la ci nit ñi la c'est comme la justice tey magistrat bu gëm yàlla ragal yàlla bu buggee def liggéeyam dina ko def parce que lan moo ko ci daal au pire des cas affectation la man quand j'étais inspecteur des impôts damay toog directeur woote ne dossier bi Sonko def ci bi ma ne ko def ma ko mu ma c'est l'autorité qui a dit ko si c'est le président ne ko Sonko nee na moo bañ def ma parce su ma ko defoon ça aurait été une violation manifeste la loi or moi j'ai prêté serment de servir la loi et non de servir un homme député bi ñu fal mu dem assemblée nationale ñu àndil ko projet de loi mu biir ko ni lii baaxul ci Sénégal waaye bëgg lu neex Macky ba tax mu dem voté ko kooku ça dépasse même système parce que dafa am loo xam ne nit bu nitee waru ko def te amul lu ko te ak nu mu ti demee théâtre mandat de cinq ans xanaa fonctionnaire bi ñuy affecté sax moo moo gën a kii kon biir yi bi wax naa ci ci pouvoir président de la il faut limiter les pouvoirs du président de la République pour l'intérêt même du président man de kii président tey néew maag moom de gis naa ko keroog mu naan day fecc ma pacca nga xaw ma lan waaye parce que dafa am loo xam ne boo ko yenee benn nit rek mais day suux ak moom attanu ko xam nga am lay wat Quoi qu'on dise, c'était Moom au moins c'était un brillant intellectuel. Mais malgré tout gis nga bi ñu koy nee mbir moom parce mbir mi dafa bëri te benn nit ko te nit ñi duñ wax dëgg wii rek lañ wax président wii yaa ko yor wii nii la la la mën a sauver bokk na ci gannaaw yow nga jiital ci lépp looy def ragal yàlla balaa ngay xool nit ñi. waaye li la mën a sauver mooy des contre-pouvoirs solides la am États-Unis ba nga xam ne le président américain su jëlee une mesure le plus petit juge de Hawaï mun na mun na ko bloquer ne ko c'est contre tel amendement de la constitution loolu mooy sauver un président république moo tax ñu ne ci suñu proposition que il faut ñu wàññi les pouvoirs du président de république mais surtout il faut ñu dooleel les contre-pouvoirs parce que le vrai problème foofu la nekk assemblée nationale il faut de vote de la loi, de toutes les lois, de finances, loi organique, loi ordinaire, loi de règlement. Mais il faut mu jouer son de contrôle de l'action du gouvernement ñaata scandale moo fi am su doon réew bu normal assemblée nationale defoon na public commission d'enquête parlementaire bi yàgg li ñuy wax ci pétrole bi ci carburant frelaté bi ci scandale marché public bi et cetera ana assemblée nationale ña nga toog di tàccu di xuloo di réclamer avantage Assemblée nationale il faut ñu dooleel ko renforcer ses pouvoirs mais renforcer ses moyens de travail parce que dafa am li ñuy wax asymétrie soo jëlee loi de finances le gouvernement fait presque dix mois pour préparer sa loi de finances avec toute l'administration yow député ñu andil la ko ne la une semaine ou dix jours pour nga xool agriculture nga xool santé nga xool élevage nga euh, ah éducation nationale ak lépp nga xool ko te yow amoo sax benn assistant xam nga benn nit amul xam-xam yooyu yëpp munoo ko dajale te amoo sax benn assistant parlementaire moo tax bi ñu nee dañuy séddale xaalis xam nga 10 millions yi ñu jox ay député su may leen du fi am 10 millions yi ñaata emploi la mun a créé xanaa kay soo doon ay jeunes ay jeunes maîtrisards en droit et en économie yeneen branche nga jël leen assistant parlementaire di leen fay deux cent mille ou deux cent cinquante mille par mois année bi sax matul dix millions ñun ñun député bu nekk am assistant parlementaire am na député yoo xam ne xamuñu sax ñuy bindee su ñu leen joxee loi de finance xam ñu lu mu wax donc renforcer l'Assemblée renforcer le pouvoir judiciaire jëlee fa carrément président de la République ak son ministre ils n'ont rien à faire là-bas waruñu siéger ci ci euh, conseil supérieur de la magistrature réformer conseil supérieur de la magistrature boobu ak euh, une cour constitutionnelle au sommet de la première judiciaire mais son rôle renforcer magistrature mu joue son rôle yooyu da koy def nag boole ko ba léegi pour régler le problème du du président la république le président de la république au Sénégal mun na def lu ko neex madame Dièye mu wàcc taal avion dem dëkki France wala États-Unis bàyyi ñu suñuy problème léegi la la seule responsabilité bi président de la République am Sénégal mooy euh, mun nañ ko poursuivre pour haute trahison mais kenn définirul lan mooy haute trahison kenn xamul ni y a pas une définition jurisprudentielle amul définition doctrinale amul définition légale ce qui fait kenn xamul lan mooy contenu bi est-ce que c'est la corruption est-ce que c'est des actes de prévarication est-ce que est-ce que kenn waxul lan la ba pare règle pour président rappelé bi ñu mun engager son sa responsabilité pour notre trahison dafa compliqué d' abord il faut une juridiction spéciale muy jaar assemblée xam nga ni assemblée bi du ko mus a mooy il y a des procédures faut que trois cinquièmes des euh, jël initiative loolu moo tax mënu ne moo tax ci suñu proposition ñu ne à côté de la responsabilité pénale éventuelle pour haute trahison ñun dañuy proposer la responsabilité politique du président de la koy dugal ci constitution mooy tey da gis ay réew yoo xam ne président bu defee nekk su dul noonu population yi ñooy njëkk a sa démission loolu moo daloon président du Brésil bi loolu moo daloon président Corée du Sud même na dafa mel ni ay président rek lay dal day day ñu peuple bi mooy njëkk a génne tey suñu ne woon Macky jaay na suñu pétrole te wax naa ko man signé na lu mu warul signé jël suñu pétrole jox ko saay-saay boobu ñuy wax Frank Timis loolu askan yëpp dañu waroon a jóg bu ko defee su responsabilité politique amoon assemblée nationale day obligé engager la responsabilité du président la république pour éventuellement ñu wax est-ce que dañ koy destituer bu pas loolu ñun France bi ñuy roy parce que ñun suñu lépp dañ ko tënk ci France mais France depuis cette réforme de 2007 à côté de la haute trahison de de la trahison dañ ci dugal la responsabilité politique du chef d'État te ñoom ñooy presque la dernière démocratie bu ko dugal kon tey il faut ñu limiter les pouvoirs du président la bokk na ci ñu koy limiter aussi mooy fonds politique Pape Alé huit milliards nga jël ko jox ko benn nit ne ko woteel nañ la ko Cour des comptes du la contrôler conseil d'état du la contrôler OFNAC du la woo su la neexee nga dugal ko ci benn néeg sotti ci pétrole taal ci loo xam ne suñu l'impôt la ñun ñëpp amul benn compte boo ci ram bu ko defee mu teg léeg-léeg nga dégg militant géej waaye ñëw nañ jox na leen 40 millions ci loo xam ne jaaykatu gerte bi day liggéey ba ngoon sonn dem di boutique boutique bi jënd almet ñu ne ko fay nga impôt 18 pour yóbbu ko assemblée jël ci 8 milliards jox mu koy pasar pasar donc fonds politique yooyu dañ ko war a dindi kii parce que fonds politique yi c'est des de corruption politique moom la jëndee tous les soutiens yi di dégg nii ba tax soo tuddee Macky Sall di witax dafa fekk ku ci nekk woo nañ rek ñamal la fonds politique yi foofu lay parce que mënu jógee ci budget de l' soo ko waxee rek ñu ne la waaw mais c' est pas réaliste moo tax ci livre bi dama ne fonds politique dañ koy remplacer ak fonds secret ñaar yooyu bokkul fonds secret mooy am réew dafa am ay dépenses yoo xam ne c' est des dépenses sensibles kenn mënu koo bind ci budget boo xam ne da nga koy def ci site ministère de intérieur ministère des finances du moins mënoo ko bind mënoo ne Sénégal di inspiré réew sàngam 500 millions lañ fa prévoir yooyu dafa laaj ñu def ko des fonds secrets mais fonds secrets yooyu d' abord dañ koy voté à l' bu ñu pare c' est fonds yoo xam ne dañ koy contrôler proposé naa une commission mixte boo xam ne dina am deux députés de l' opposition deux députés du la majorité un présidé par un magistrat de la cour des comptes qui ñoom ñooy dem vérifier la régularité des dépenses qui ont été faites sur ces fonds publics. mais dans une démocratie dans une démocratie mënul am benn dërëmu citoyen bi boo xam ne dañ koy jox kenn mu koy fooy mu ko nekkee loolu du yoon beneen élément boo xam ne pour limiter les pouvoirs du président de la république mooy le pouvoir de nomination mais président de la république parce que constitution bi ne la c'est lui qui nomme aux emplois civils ko lu ko neex lay def dañuy jël ngeen baal ma ci kàddu bi mais ñi gën a dënk ci administration bi ñoo xam ne sax ay rapport épinglé na leen pour les comptes d'IGF mu mu jël ko moom teg tànkam woo nit ko ba mu yow mu ne ko am nga ay milliards demal nga politique am jox ko nommé jox ko responsabilité loolu moo tax ay li nga gis administration kenn liggéey tout le moon est démoralisé tout le monde donc pouvoir nomination boobu duñ ko ko utiliser mais dañ koy encadrer mooy tous les hauts emplois à un certain niveau directeur directeur généraux d'abord warul nekk ñu ñu ñuy jox ay nit yoo xam ne dañuy def la politique de manière flagrante un directeur général su melee ni mu war di liggéey ni mu war a liggéey amul jotu nekk ci terrain bi naan day organiser ay meeting ak day politique deuxième bi war nañu fexe ba poste yooyu yëpp dañuy def appel à candidature soo demee Togo bi Togo Côte léegi pour nekk directeur général impôt et domaine wala douane dañuy def appel à candidature daal di génne des critères xool sa njub xool sa cursus sa ancienneté xool sa compétence ñu def une sélection boo xam ne comité bi koy def ay nit yu autonome lañu su dee cinquante yoo déposé ñoom dinañu sélectionné ba génnee ñetti dossier mu leen di ñetti ñi seen i meilleur ñu ko teg ci table président ne ko am nga possibilité choisir si ñetti ñi mais bàyyi ko rek mu xool ku ko neex parce que moom laa bokkal wala moom a jege wala moom li ma bëgg ci politique la ma ko defal loolu musiba yooyu yëpp bokk na ci ay yoo xam suñ ko dajale defe naa pouvoir président de la république dañ ko wàññi waaye am na yeneen wax naa ko ci décentralisation parce que suñu collectivités locales yi xam nga ni ay sous-préfecture exécutif rek il nous faut de véritables collectivités locales bu dee dugg nañ ci waxtaan bi dinaa ci xuus parce que defe naa tontu naa ci li nga jot a wax jërëjëf. souvent public la daan euh, assistance bi gis nañ assistance bu dal lañ foofu nga xam ne pouvoir Pastef lañ wala déet yaa ngi beneen difficulté bi souvent mooy di ne euh, temps de parole bi ak euh, réponse yi je crois que confrères yi si def effort kon Ousmane Sonko la ñuy mu def effort ci réponse yi mu xaw a gàtt tuuti